رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي نجي تمسن برام سبحانه وتعالى بجلد سلمة أبيانة محمد صلوات ربي وسلامه عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جناب سنتات يسون برام جل سلم سنبيانة محمد صلى الله عليه وآله وسلم noo ngi ñaan sunu borom mu dëkkee dotti waamam xéwal ci kaw yonent boobu alayhi salaatu wasalaam mbokk yi guddi gi ñu nekk mooy guddi gu mujj ci bis yi tool yi ci fukki fan yu mujj yi maanaam comme ni ma ko waxee woon barki démb maanaam ci guddi yi yërëmtalu la ñu nekk maanaam guddi yoo xam ni nit ki mën na ci màngee amee ci loo xam ni mbokk yi ak dundam yépp mënu ko caa am xam ngeen ni mbokk yi ñaar ci mbir benn ci ñaari mbir yii may bëgg a wax xam ngeen ni am na illa laylatul qadr romb na wa illa mu nekk tey ñaar yooyu moom faaw benn am ci laylatul qadr paase na wa illa mu nekk tey su fekkee wér na ni paase na mbokk yi est ce que ñun paase nañ ko ci anam gañu ko suñu borom nangulee bañ mën a am jaamu yàlla juróom ñett fukki at loolu mooy laaj bu kenn ku nekk war a laaj bopp wa illa passé gut kon tey la lan lañ waajal tey ci def ko ngir am jaamu yàlla jur ñett fukki at mbokk yi lii laaj la bu yërëmtalu boo xam ni yaakaar naa ni ku xam li ngay laaj sa bopp lan la defe naa boo ko laajee sax di nga ci amut ndiir doo ko mën a am tool segam di nga ko am sax waaye ñu xam ni mbokk yi am na mbir moo xam ne man day sama borom yàlla subhanahu wa taala ay mbiram yi ma ci yéem bari na torop waaye bokk na ci yi ma yéem yi ma gën a yéem mooy ñaan mbiram ñaan mbiram sunu borom day yi ma ci yéem bari na torop waaye bokk na ci yi ñu ci gën a yéem moom mooy li ñuy tuddee addu'a muy ñaan man daal jaamu yàlla gi ñuy tuddee ñaan toog naa di ko xool di ko xool di ko xool ba mu yàgg daal dëgg-dëgg ay mbiram maka la mu jaxasoo la lool ci man ndax ñaan ci boppam daf di kéemtaan gu rëy ndax jullit amul arme bu gën a rëy ñaan mbokk yi addu'a ku gëm yàlla ne yëg ni amul ci kaw suuf arme bu gën a rëy ñaan yàlla subhanahu wa taala bal nag man damaa fàtte mboolem masala muñ bëgg mu réglé wu fi dunia mook masala yiñ bëgg ñu réglé wu fi l axira yëpp ñaan mën na koo réglé ci moom yaan rek moo ci wéet nag xalaat ngeen ni mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañu adduaau huwa al ibada adduaau salaahu al mumin ñaan mooy ngànnaayu julit mbokk yi lan ngeen xalaat ci nit ku nekk ci place bu am insécurité nga xam ne bis bu nekk ba kanam mi ngi ci xottu gerte ndax yaakaar ngeen ni kii dina génn di dem mbaa mu tëdd di nelaw fekk mi ngi fàtte armam yaakaaruma loolu ndax nit ki li ko gën a ñor du jug ci xelam jaamu yàlla ak nii ni ñu bëggee jaamu yàlla nga xam ne tey kenn ku ci nekk yaa ngi wax ci sa lisaanul xaal wal maqaal lan la yàlla subhanahu wa taala gën a bëgg rek su ma ko xamoon te loola rek laay far concentré wu ndax ma am ngërëmam ñu ne la addu'a u ñaan huwa moom sax nag moom ñaan ci boppam al ibada mooy jaamu yàlla maanaam dafa mel ni dañoo jël jaamu yàlla yëpp ci la bu la yëpp tëjee wala bu la yu bari tëjee wala boog bu la ca amee lu la ca tës ñaan moom simple ndax may ma vraiment dafa yomba yomba yomba jéggi dayoo ñu ni huwa la ibada moom sax mooy jaamu yàlla. kaay leen mbokk yi ngeen ànd ak man ñu def benn tadabbur ci benn aaya bu nekk suuratul baqara méngoog li ñuy dund méngoog fan yi nu nekk muy weeru koor xam ngeen ni borom bi subhanahu wa taala ci aaya ñaar téeméer ak nangam suuratul baqara mi ngi wax yoonal boo xam ne yoonal na fa koor kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayaaman maadudat ila axiri l ayat borom bi mu ni farataal nañ ci yéen koor comme niñ ko farataalee woon ci ñi leen jiitu woon ngir ngeen ragal yàlla loolu tegtal la bu wee ne kon ñi ñu jiitu woon amoon nañ koor amoon na seen koor ak sunu koor mën naa wuute waaye mbokk yi ci jeexitalu aaya ba sunu borom dañu ku nekk ci tukki wala nga am ngant fa iddatu min ayamin uxar yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum al usra wa litukmilu al iddata wa litukabbiru llaha ala ma hadakum wa laallakum tashkurun te mbiram woor jeexagut ndax masalay koor des na suñu borom mu ni wa ida saalaka ibadi anni sama jaam ñi buñ la laajee ci man suñu borom ci mbiram jege koog ñaan ko mu nangoog diis ko say soxlaak wax ko say problème nee leen fa inni qarib man dama leen a jege lool jege gi yegg ci xoolal jege gi maanaam foofu borom bi subhanahu wa taala dafa wane jege gi waaye jege gi ngir ban sens mu utiliser sens ab ñaan mu nangu mu ni ujibu damay nangu damay wuyu daawata daa'i woote aji woote ida daani su fekkee man la woo kon ki jug di ñaan mu woo borom bi subhanahu wa taala kese wowut keneen yàlla mu ne damay wuyu ak ñaanam su fekkee charte bi mooy man la woo man la woo nag mooy bokkaale wu ma kenn suñ bëggee mu sotti ni ñuy def mooy fal yastajibu lii nañ ko wuyul nangul ko wuy si ko wala yuminu bi ñu gëm ko gëm ak gëm ni li mu yore moom rek ko yore te moo ko mën a joxe laallahum yarsudun léegi suñu borom def benn entre parenthèse foofu daal di continuer uhilla lakum laylata siyaami rafatu ila kon koor jeexagul maanaam li ma bëgg ñu xam ko foofu mooy ci biir koor muy weer wi ñu nekk ci li suñu borom dugal ndëxañ ci yëpp googu mooy ndëxañ googu di wane ni kat mbiram koor kat buñ ko waxee mbiram ñaan moom deesu ko fàtte kon mbokk yi loolu ku am benn fiq bu gàtt di nga xam ni kon koor kat ci barabu ñaan yi la bokk yu màgg yi sax laay wax mbokk yi nee naa leen masala yi suñu borom yi day yi mu ci yéem bari na topp waaye masalam ñaan moom yéem na ma tey mbokk yi xoolal ñaan ni mu neexee ak ni mu yombee damay wax ni jaamu yàlla yépp ñaana ca gën a yomb gën caa neex ah yow jàkkaarloo nit ñi ko may ma may ma xoolal baatam may ma ni mu simple kutewul a benn énergie yow ñaqoo ci yow apatoo ci yow doxoo ci yow ferewoo ci dara ba pare mu yëkkati daal di lay jox ba pare nga wëlbati ku ñu bindal lu ko tiyaabay ko jaamu yàlla est-ce que mbokk yi seetlu ngeen affaire bi ni mu neexee te yomb jàkkaarloo ki nga jàkkaarloo ni ko may ma mu simple loolu ku teewul a benn énergie jëfoo ci benn coono ferewoo ci benn xaalis mu yëkkati ba pare may la ba pare wëlbati ku ñu bindal lu tiyaabay da ngaa jaamu yàlla mbokk yi simple na trop neex na lool ba jéggi day bal suñu borom day wax ni képp kuy rëy rëylu ba du ñaan yàlla yàlla dana ko mere ba tàbbal ko safara moo tax melokaan woowu ci suñu borom rek la yem allahu yagdabu xiina tarakta su'aalahu wa bunayu aadamu xiina yusalu yagdabu yàlla suñu borom moom boo ko ñaanul daf lay mere doomu aadama nag boo ko ñaanee daf lay mere wala fi nee nañ gémmiñu may ma bu yàggee forox ma ni wax ngeen dëgg ba mu des bu jëm ci saa borom gémmiñu may ma mooy koo xam ne dangay sax may ma tey boo ñëwoon ci man mii ni ma may ma dara ma may la ko xol bu sedd guy ak yéene la ko bu subaa nga ñëwaat ni may ma la ca des ma may la ko gis nga bu ginnaaw suba su ma la déggee ngay ñëw rek damay làqatu parce que si gémmiñ gi day tàmbalee forox ci man lu ci mën a bëgg ci allahu akbar mbokk yi xoolal nit ki buy ñaan yàlla li muy yëg moo leen koo xam ku am lu muy joxe am na waxtu woo xam ne da koy coupé téléphone am am na waxtu boo xam ne da koy tëj buntu këram am na waxtu woo xam ne daf koy nelaw am na waxtu woo xam ne bëgg ko seet si am na waxtu woo xam ne fi nekk day tukki waaye yàlla subhana taala fi jamii al awqat wa jamii al ayam maa alshuhuri wa sanawat ànd ak soxla yi li ñuy bari bari bari allahu akbar ñaata mil ci milliards yi doomu aadama ñoo nekk ci àddina bi allahu alam ñaata milliards yi jullit ñoo nekk ci seen biir yàlla rek ko xam ñooñee ñëpp ndax ñi ngi ñaan yàlla waaw waaw ku nekk la ngay ñaan ak sa morom ndax ñoo niroo déedéet ku nekk waxtu wa nga koy ñaan ak sa morom ndax ñoo tolloo déedéet sa aajo ak sama aajo ndax ñoo tolloo déedéet li ngay làkk ak li may làkk ndax ñoo niroo déedéet waaye sunu borom ci màggaayam ak kawaayam ak am kàttanam ak sori gu mu sori lépp ci sikk kenn ku ci nekk te làkk ba ngay làkk namp ca ngay wax soxla sa nga am ngay wax borom bi di ko dégg ci wenn waxtu ndax samiun alim allahu akbar moo tax mbokk yi ñaan de nee naa du ma dañ di takraar ni mbiram sunu borom de yi ma ci yéem bari na waaye mbiram ñaan moom jaaxal na ma lool masala la moo xam ne xam naa ni dees na ko nafar ba sonn waaye danaa mbokk yu des yoo xam ne dana naqareeroo xam si kon mbokk yi su fekkee yëg nañu ñaan am na boobu dayoo suñu borom bi ci sonne am man yujibu al mudarra ida daa kan mooy kuy wuyu ki jàq kan mooy kuy wuyu ki jàq saa boo jàqee ah nga xam ne jàq nga ba say fexe jeex ana kan mooy ki nga xam dafay wuyu borom borom bi wuyu ko subhanahu wa taala ci lim koy ñaan kon ñaan mbokk yi dañu war a yëg ni ndekete ñun amuñu pexe amuñu kattan mënuñoo sottalal suñu bopp dara wa ma tashauna illa an yasha allahu rabbul alamin mënuñoo fexe dara baax suñu mbir lu dul dañoo tàllal suñu loxo suñu borom ñaan ko man kay nag mbokk yi da ngaa war a gëm ni amut ci kaw suuf loo xam ne mooy jagal sa dund àddina ak àllaaxira lu dul ñaan daf koy rek aayaat yi ñëw ci di wax ci ñaan moom bari na lool ba buñ ko bëggoon liñ jël ci waxtu ñaar yi ma ci tudd doy na xadiis yi ñëw ci ñaan bari na lool ba jiggi dayoo bal sax nag yonent bi da doon jàngal saxaaba yi ñu gëm ni képp xaala bu nit ki mën ci toll dafay ñaan yàlla ndax xam nga doomu aadama mënta xëy soo ba ngoon sax ñaanul yàlla ndax jëmmi i ihdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim da nga koy takkaraan ci julli gu nekk ci rakka bu nekk te loolu rek ak ñaan la bal nag mooy ñaan gi gën a rëy ci nit ki ndax hidaaya ci boppam moom nga gën a aajowoo kon mbokk yi ñaan yàlla subhanahu wa taala lu màgg la te it ibaada la xoolal yàlla subhanahu wa taala ñàkkut dara xoolal yow ni nga doyadee ah yàlla subhanahu wa taala ganiyun an il alamin ku am kattan la ku bari ku bari am koom la moom suñu borom ndax moom moo moom koom li nga aajoo moom lépp am na ko li nga ñàkk moom lépp am na ko moom suñu borom suñu borom subhanahu wa taala aajowoo nag dégg doomu aadama bi jaam bi aajowoo nag jaam bi ko moo aajowoo ndax yàlla amul aajo ci dara jaam bi aajowoo ku ko fajal ay soxlaam suñu borom muy ñëwal ci sama buntu nga taxaw fa nga tàllal sa loxo nga ñaan say aajo ma fajal la ko kaag ba àddina bi sa sa tàmbalee ba tey li fi suñu borom faj ci ay aajo kenn xamu ko ku dul moom mi ko def moom suñu borom doomu aadama dana am ci aajo joo xam ni dina nekk ci ay xat-xat ak ci tiis yoo xam ni allahu akbar da ngay yëg ni bii moom bu dee sérée nga jël ngay bokkaale parce que xam nga ni bii kenn mënu koo faj illa rabbul alamin sa xel daj bi sori dàq mboolem ku nit doon yaakaar ku dul suñu borom mu wér la ni bii moom tawat jii moom médecin mënu ci dara dem nga ba yëg ni amul kenn ku ci man parce que médecin bi nga yaakaar muy médecin chef bi ne ci hôpital bi xool na la nee na sa feebar bi du wér nga def ay analyse ñu ne la yow moom toogal nga xaar dee lu doolil mawti wag nuulil xarabi mu wér la ni bii moom tegam médecin chef bi moo ni kenn mënu koo faj sa xel dem na ci dee xoolal masala yu mel noonu ni muy baree lu muy gaar ab jigéen a ngi nii boo xam ne fii ci Misra dafa amoon cancer cancer de foie mu dem ci médecin bi mu xool ko xamal ko ni ko cancer bi yegg na koo xam ne dominé na sa yaram wi ba bii feebar moom du dee du du du wér dal di koy bindal ay papier yoo xam daf ko wan ni ko waxuma ne sax daf ko wax ni ko nangami jour nga mën a dundaat xoolal nangami jour nga mën a dundaat waxuma ne sax da ngay dee waaye nag boo amul chance ci mois de nangam war ngaa dee xam ngeen xam-xam xaral na ba ma yaa xam ne yoo xam ne ci ni yàlla may na ko léegi loolu nag du kumpatu dara parce que su xeetu xaralee xam-xam yi lay bokk ndaw si daal di amug jaaxle te yàlla def na ku amoon alal la jaaxle dikkal ko lool te amaana dee léegi arrangé ko ndax léeg-léeg loolu am xelam dem ci dem makka umra def jaamu yàlla bu ñuy tuddee umra balaa dee dikk ndaw si dagg bi dem aji dem aji wala mu umra ji yàlla xam benn ci ñaari yooyu léegi bi mu yegsee ba ci ndoxum zam-zam yonent xelam dem ci waxu yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam mu ne maa u zamzam li ma shuriba la ndoxum zamzam kat lu ko waaye ñaan yàlla yàlla may ko ko xelam dem ci feebaram bi mu daal di dem jël ndoxu zamzam tàllal yàlla ay loxoom mu ñaan yàlla ci tawatam jii nga xam ni ayal aqod ba'u an shifaa'i docteur yi dem nañ ba tële ci mënuñu koo faj mu talal ay loxo mu ñaan yàlla ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ba xolam sedd mu dem ci kii bi nu mu tuddati bi kaaba gi mu julli ñaari rakka talal loxom ñaan yàlla ñaan ba xolam sedd mu yëkkati ndox mi daal di naan li ma yëkkatee ndox mi naan nee na dafa sentir ci biir bi luy lëngatu kurum kurum kurum kurum maanaam men daf ko yabal dem war ak mu dem nee na bi mu demee li mu génnee allahu akbar dafa ñuul ba moom ñimewu koo xool nee na noonu rek mu daal di génn rek sampaat xel wi demaat utaat ci ndoxu sam-sam defaat nam defoon ñaan yàlla dikkat ci kaaba gi julli ñaar rakka jooyal yàlla def nu mel nam defoon tàllal loxo ñaanaat yàlla naanaat ko muy affaire men du ko yabalaat bi mu demee li mu génne nee na moo gën a gaaw lam génne woon ci yoon wu njëkk woon mu sampaat xel wi mu ne demaat julliwaat ñaar rakk ñaanaat yàlla naanaat ci ndox mi jooyal yàlla dellu siwaat nee na bi mu dellu see na ci la sentir affaire bi di génn nag di zone ñuul bi commencé wàññeeku muy zone affaire bi di zone génne loo xam ni yàlla rek moo xam lii lan la ci yaram bi nee na bi mu paree daal dafa mel ni ci misaal benn waay bu ñu yenoon saako bu diis ñu daal di ko yennee ko teg fee mu sentir yaramam commencé di naaj yi tuuti nee na bi bi mu jeexalee mu daal di ñibbisi bi mu ñibbitee toog ab diir mu dem ci médecin bi yóbbaale dossier yi fekk dat di ko te li may wax ñi ci jamono bii ñuy dund nii la am yàggul médecin bi ko doon suivre fekk na dat bi mu ko waxoon ci nga war a dee dat di paase na médecin bi daal di xool dossier yi mu ne ko man la diw mu ne ko déedéet diw moom war naa dee kooku du yow te moo ko doon suivre xam na ko xam ay dossier mu ne ko man la diw mu ne ko déedéet du yow parce que kooku heure bi waru ko fee fekk dee na wala ñoom ni ñu dëkk ñoom dañoo yaakaar ni maanaam ci xeetu xarala yi boo ci xësee sukkandiku rek la nga wax noonu lay doon comme nañ yàlla ni dogal noonu mu daal di koy xamal ni ko man kat man la dama demoon makka def nangam ak nangam mu doog a gëm ni kon waa ji la ci la doog a gëm ni inna allaha ala kulli shay'in qadir te wallahi mbokk yi loolu benn la ci yi nga xam ni moo fees dell àddina ci kéemtaani suñu borom yi am ci buntu yi xam yaakaar naa di nit li waat ci dund salaf yéen ci xam ci ñaan mu nangu moom du ko jarati ndax suuratul ankabut ci tafsir bi ñu nekkoon ci koor gi gis ngeen joxe woon naa keroog ci benn dar ay misaal yu bare bare bare bare ci benn aaya bu ñu tolloon di wax ci wàllu ñaan ci aimatu salaf ñoom nan la seen yàlla soxla kiimaan yàlla yi ci ñaan yaakaar naa baamtu xajaatu ci diggante bi ndax yàggut waaye li mu bëgg ñu xam ko foofu rek mooy mbokk yi ñu xam ni kon ñaan ci boppam martaba ju kawe la ju rëy la am mbokk bi su fekkee ni gëm nga ni ñaan place bii la am ci alquran place bii la am ci sunna yonent bi su fekkee gëm nga ni ñaan ñii la la arrangé waaw sa soxla yow noo def ak moom ci ñaan allahu akbar mbokk mi ndax aajoo dugg àjjana te loolaay la gën a rëy ci lu ñuy yóotu nag ndax maa baax dugg àjjana amut ñaan looy ñaan ci ginnaaw dugg àjjana man soxla nga yaama ci amatoo ko amatul soxla ndax dugg àjjana ca lay gis yàlla boobu te dugg àjjana bu jàllee gis yàlla jàll amatul lu ko féete kaw kon sa dugg àjjana gi moom foo ci toll ci ñaan ndax lii nga nekk tey muy sunna mu wér la ni mooy dëgg amatoo sikk sàkk ci ni mooy dëgg même bu amee feneen foo mat a jaar xam nga ni fi nga nekk tey mooy dëgg est ce que di nga ci sax ba dee ci loolu ndax yaa ngi koy ñaan kenn ku nekk ñun am na jàngoro jooju yëpp jàngoro jooju foo ci toll ci ñaan te ba ngeen ba ngeen xamaale ni julli guddi nag day faj feebar est ce que xam ngeen loolu ñoo ni ci xadis bu wér ci saxal jaami soxnaatul albani wéral ko mu ni julli guddi mooy jaamu yàlla ak mag ñu njëkk ña te it te lañ doon jege yàlla te it julli guddi day saafara jàngoro yi nekk ci yaram allahu akbar mbokk bi sa aajo yi nga am ci aajo yi nga am ci teraangay addina sa aajo yi nga am te nga xam ko man xamuma ko sama yi ma am ma xam ko yow xamoo ko yàlla rek xam ko fan nga ci toll ci ñaan yàlla subhanahu wa taala mbokk yi maa xam nga ni jullit bi dafa war di ñaan yàlla ba ñaan yàlla mu may wërsëgal ko sotti bu mu sottoo maa xam nga ni fi ne benn sotti boo ko bëggoon tey te yàlla yàlla dimbaliwu la ci wallaahi doo sotti sotti xam nga foog ne am ñaar dërëm dem ci buti bi mooy tax a sotti du noonu de wa ma tashaauna illa an yashaa allahu rabbul alamin mooy bëgg mu sotti mënta am lu dul daa fekk sott na suñu borom kon dama ni sotti bi nga bëgg a sottoo sax da nga ko war a ñaan suñu borom subhanahu wa taala lii la yonente bi yaree woon saxaaba yi gis nga am na benn saxaaba boo xam ne dafa defoon yéefar yi lu métti yéefar yi mere ko ñoom ñu man koo ni gisee kii buñ ko aj buñ ko jàppee nañ ko sajaraate comme ni ñuy sajaraate benn waay bu toog bu bëgg a toggum xaram yéefari di ko wër di ko wër di ko wër bi ñu yëgee information boobu moom xam ne dana dee parce que ci jihaad la nekk mu ñaan yàlla mu ne yàlla yow mi nga xam ne ala kulli shay'in qadir yàlla na nga ma wër sa gëlal su ma faatoo ab yéefar bu am nu mu tuddati doole ci sama yaram ma mën a xaawi sama sutura wala muy gis sama awra wala mu may daggat yàlla nangu ñaanam gis nga bi mu dee xam nga lan moo xew dafa dee tëdd yéefa yi di ko wër ba jub ko rek ñu seen mbooloom yemb daal di ñëw wër ko mbooloom yemb wër ko xam nga yéefar yi moom xam nga nit moom bu gisee ponkali yemb yoo xamante ni yemb moom daanaka xamul jaay sa xamul dara moom booy kii rek muy ak sa noppi gaa yi riir wutile ko rek yemb yi riir wuti leen mel ni daal benn escort bu ko tiim nii di ko garde di ko garde di ko garde ba jullit yi yegg ci yemb yi naaw bi jullit ñi yegg ci la yemb yi naaw dem jullit ñi jël koor bi daal dem suuli ko kooku moom ñaanam nangu na allahu akbar mbokk yi xoolal xoolal kiimtaan suñu borom boobu yàlla yabal yeneen soldaar yoo xam ne ma yaalamu junud rabbika illa hu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni maanaam yàlla daf ko doon nangul ñaan jaamam yu baax yi kon nag yëg-yëg boobu yow yaa ngi koy am surtout ci dugg di barkeel yi ñu toll mbokk yi ñaanoo nag lu gën a rëy ihdina sirat al mustaqim yàlla saxal la ci njëkk mbokk mi boo yàlla saxalu ci njëkk subhanahu wa taala ba nga jàng nga jàdd nekk ci caay-caay ba dee fekk la ci caay-caay nga deekaat bi sawara ndax yaakaar nga ni am nga ci kaw suuf loo mas a ñaan loo xam ni jar na ko ba ngay bàyyi bii déedéet waaye loo mën a fàtte fàtte fàtte mbokk mi bul fàtte ñaan aljanna ah mbokk yi sunu yaram yi day mënta dékku sàngooru jant mënta dékku sawaras adnit kon de mënta dékku bugalu sunu borom tafarra ila allahi واسأل الله التوفيق والهداية والجنة مع النجاة من النار ñaanal yàlla nangul la mooy li ma leen waxoon même boo jógee guddi nga jëf ci jàkka ji dem def xiyaamul layle yow defe ne yaa ca nekk ca ngóor ga ngir ne jaamu nga yàlla loolu bu mu la nax de Ibrahima moo def jaamu yàlla gu mag gën tabax kaaba ga def yonent yàlla di xalilullah wattaxada allahu Ibrahima xalila waaye mu tiit naan rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim yàlla nangul nu boo nanguwul du baax de bu tub alaynaa jéggal nu boo na jéggalu suñuy bàkkaar du baax gis nga mbokk yi di nga gis nit yàlla defal ko ci ay tawfiq loo xam ne mi ngi am ci ñaan man damay wax ni maanaam damaa dem ba jàpp ne fi mu nekk nii amut lu ñaan dul rek rek nga xam nit jaaxle gu mu am na dem julli ñaan rek mu ñaan ko yàlla gis nga nit ci saa bu nekkee ci ay problème ci lu muy lijjanti ci am jafe-jafe police wala tribunal wala ku ko tuumaal wala ku ko tooñ wala kay bi mooy lijjanti tabarra ila allahi wasalillah ndax yàlla am na lépp subhanahu wa taala na nga bokk ci li ngay ñaan yàlla wërsëgal la as tuut soo xam ni diñ ci mën a sàmmee sa ngor mbokk yi mbaa xam ni nit dina jaay ngoram jaay diñteen jaay diineem te koom-koomu àddinaa ko waral yénte yàlla bi nee na ay bisa ngi ñëw yoo xam ni dafa lëndëm lool mel ni dogi ci guddi gu lëndëm nit ki mën naa yeewu nekk gëm yàlla balaa ngoon mu nekk bi yéefar ñàkk mën naa tax mu jaay diine bu ngoram ci njëg gu tuuti ci biiru àddina yi bokk te ñaata nit ñoo mursat ñuy tubbi ñi dem ci témoin de Jéhovah ñi ñu ger leen ci alal ñi ñu dugal leen ci gouvernement ñi ñu bàyyiloo leen jàngal jàngale ñi ñu bàyyi ila axiri yi ngir lan ngir koom koomum àddina mu wóor leen tey ca martaba nga dem jaay sa diine jaay sa ngor kon mbokk yi ñu gën a yee salaat ñaan yàlla subhanahu wa taala ñaan nag mbokk yi dafa am ay heure am ay teggin am luy tax yàlla doon ko ñaan waxoon naa leen misaal yi ci wàllu nangu ñaan moom ci dundu salaf moom jërut baa mu war ndax suñu dars biñ ci mujjee def yàggut mbokk yi bokk na ci waxtu yi gën a sell ci ñuy ñaan ma tàmbalee ci bi ñu nekk mooy weeru koor waaye ci weeru koor ca guddi ya waaye ca guddi yi ca guddi yi mujj ya waaye ca biir yëpp nag waaye yii ma tànn mooy tànneet yi waaye ca biir guddi yi mujj ci bis yu tool ya kon mbokk yi tey ci la xaaji guddi bu guddi gi deecee sulus bu mujj bi ci bis bu nekk ci at mi yéen ci yàlla bi nee na bu guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj ba sulus bu mujj ba suñu borom day wàcc ba ci asamaan benneel allahu akbar ca màggaayam ka ak kaawaayam ka ak sori bu mu sori lépp sikki ci ay ba ci manqué manqué te fa mu jógee ci nekk fépp a yem ci moom amul loo xamante ni xalaas la buñ naan moo ko ëmb ak moo ko naan sunu borom ni yéen jaam ñi kan moo am aajo man fajal ko aajom kan mooy jéggalul bàkkaaram ma jéggal koy bàkkaaram ndeysaan fekk yow déggoo woote ka ndax yaa ngay nelaw la hawla wala quwwata illa billah gis nga yéen ci yàlla bi say muslim xadis boobu mu ni wa zalika kulla layla loolu guddi gu nekk lay am beneen bi ci des mooy buy taw ñu ngi ci waxtu nawet waxtu taw waxtu wu ñuy nangu ñaan la saa boo yëgee ni mi ngi taw profité foofu nga ñaan yàlla ku feebar yàlla day nangu ñaanam ku nekk ci tukki yàlla day nangu ñaanam su jóot ci julli yàlla da ciy nangu ñaan ginnaaw julli juróom yàlla da ciy nangu ñaan ginnaaw tàkkusaanu àjjuma yonent yàlla bi am na ci heure boo xam ne benn gëm yàlla du tombeeg moom mu di ko ñaan lu dul yàlla nangul ko ñaanam ila axiri yu bari la yoo xam su ma ko ne mu gën a jël waxtu waaye am na noo xam ne mooy teggi ni ñaan comme ni ko ibn al qayyim di waxee rahimahullah nit ki toog julli ñaar rakka concentré wu d'abord bu tuub ay bàkkaaram parce que ku tilim doo dugg ci buntu kër suñu borom nga tuub fàttaliku li nga def ci ay ñaawte ak ci mbonte nga rëcc ko jéggalu ko bu jëree nga jooy nga jooy ci yàlla ñaan ko yow suñu borom sama ndigg laa ngi diis gann ndax ay bàkkaar a ko diisal te ay bàkkaar comme diisal du mën a séq ay jéego jëm ci sa bunt te bàkkaar yi moom biir na ma ñu amul kenn ku ma ko mën a jéggal ku dul yow te soo ma ko jéggaloon ma alku ci àddina balaa àllaaxiraa yegg ci maa ngi sàkku jéggal fompal ma bàkkaar yi jéggal ma rëcc rëcc yi ah ku mën a bale nga da ngaa bëgg di baale baal ma nangam def naa nangam lim say bàkkaar kooku benn la ci jéego yi ñaareel bi moom mooy nga bàkk yàlla kañ ko tudd ko ci turam yu sell yi sunu borom mu ne walillahi al asmaau al xusna fadcuuhu biha sunu borom am na tur yu mag allah al malik al qudus al salaam al mumin al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir al xaaliq al baari al musawwir الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الحكم العدل السميع البصير اللطيف الخبير الصبور الشكور الواجد الماجد الواحد الاحد بما جرمين فك جرمين nga tur yooyu nga lim ci yi nga ci xam ñaan yàlla ci tur yi nga xam ak yi nga xamut yi nga yi nga mokkal ak yi nga mokkalut ñaan yàlla ci turam yu màgg yi bañ koo bokkaale kenn loolu bokk na ci li yàlla tax nangu sa ñaan ba léegi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallam dañu koo xam ne suñu borom da koo fonk fonkeel bu jéggi ñi mu fonk mbindee fi yépp lu julli ci yonent sallam loolu bokk na ci sabab yi tax yàlla nangu sa ñaan jiital ko ah boo paree nga bàcc yàlla kañ ko ay suñu borom yow day ku màgg nga fële asamaan si ni nga ko yëkkatee rek mu téeñ ñu daanoogul suñu kaw ba tey fala suuf si ni nga ko tàllalee rek mu tàll ñe rek ba léegi mësakun ci biiram fala jant bi ba ñaata énergie la ñuy amal njariñ xoolal sa ngelaw li bis bu nekk ñuy noyyi te mosuñu fay sa facture ay suñu borom yow de yërmande ji nga am ci ñun boo ko defaroon ko mu fu ñu jëm ndax keneen amu ko ci ñun yow suñu borom xool wërsëg bi ni nga ko séddalee rek séentaan la ay allahu akbar ay suñu borom yow de ñu ngi lay bàkk di la kañ borom tur yu sell yi melokaan yu kawe yi yow de innaka ala kulli shay'in qadir tëlew wa dara gis nga lii may ñaan amul kenn ku ma am aajo ci moom mu fajal ma ko ndax gëm naa ni kenn mënta fajal sa bopp bay fajal kenn yow yàlla ñaan bi yow rek yaa ma ko mën nangu boo ma seetaanee ma alko soo ma bàyyee ma yàqule soo ma bàyyee ma torox ma tos kare yow suñu borom sa jaam bu doye di baa ngi nii boo xam ne waxtu guddi jot na ku ne tëj na sa bunt yow sa bunt du tëju mukk yow yaay nangu ñaan ci waxtu wu nekk keroog ba asamaan sàkkee suuf ñu sàkk ko ba tey àddina bi nefi bis bu nekk yow yàlla kulla yawmin huwa fi sha'ni yaa ngi nangu ay ñaan te loolee wàññiwul ci sa nguur gi luy tolloog ku jël ak puso dugal ko ci géej génne ko lu tolloog xoq booba loolu mënu ko wàññi ci sa nguur gi yow suñu borom li nga yore bari na lool te doo ko jëriñoo amoo ci aajo man maa ci am aajo man man ak samay morom yow suñu borom aajo gii de bu ma ko fajalut man sax damaa bëggul sax keneen di ma ko fajal ndax xam naa ni keneen mënu ko du ma sonn ci buntam wax ay baat yu ràbb yu rafet comme ni ko àlalaama bin xayim di waxee gis nga su àggee nag jiital nga julli ci yonent bi jiital jéggalu say bàkkaar jiital tu turu yàlla yu màgg yi soo paree nga wane sag lot ak sag doye di ak aajowoo koo ko aajowoo nga tàllal say loxo nag ñaan yàlla gis nga booy ñaan bokk na ci teggi ni ñaan li tax yàlla du nangu ñaan mooy yàkkamti yéen ci yàlla bi nee na yàlla dina nangu sa ñaan fii ak yàkkamti woo yàkkamti mooy lan mooy nga ñaan tey suba ginnaaw suba ngay tarax raxi ñaan gi daal nanguwul ah yow léegi da ngay ñaan wala da ngay imposé yàlla defal ma ko dama bëgg altine altine nga defal ma ko mel ni yow yow yàlla li muy def yow yaa ko koy wax te yonent yàlla bi ku yàlla ku baax la ku tedd la rus na ab jaam def nii xalal la ko yàlla delloo ko fekk léegi li am mooy soo ñaanee yëgal ni nangu na waaye nan la nangu yow da ngaa bëgg da ngay ñaan yàlla téere bii léegi balaa ñuy nodd fajar ñu may la téere bi avant ñuy nodd fajar waaw loolu bu amee neex na baax na waaye nag du noonu lay amee bis bu nekk amaana téere bi ci la ko war a may ci ne ma nga war a jóge ba biir Dakar te yëg seegut bul yàkkam ci kon soo ñaanee nangu na waaye nii la nangoo ci kat yi da ngay ñaan lii mu gën ci yow léegi ak tay ca baax yàlla may la kon léegi loolu mooy ñaan ci saasa mu nangu ci saasa loolu moom defe naa joxewoon naa ci misaal yu bari way laa nga ñaan fekk jotagul gënagul suñu borom xaar ba mu jot mbaa mu gën mu doog koy indi kon boo yàkkamte yàqule wala nga ñaan fekk feebara ngi lay xaar feeg ñaari at ci kanam feebar boo xam ni hôpital yi Dakar yépp mën nga cee entré te doo wér musibaa ngi nar a këpp accident boo xam ni sa faar yee nar a damm wa illaa boog lakk gu métti goo xam ne wala lakk sa géej ga musiba yooyu nga ñaan te ñaan mën naa fang balaa ak musiba suñu borom jëlal la ñaan gi yow lan nga doon ñaan passeport ndeysaan te xamoo la passeport gën na ci yow suñu borom jël aajoy passeport fattal la ko foofa fa nga doon accidenté ba say faar damm suñu borom fattalee la fa ñaan ak passeport bu ko defee yow passeport nga doon ñaan suñu borom mayu la passeport waaye léegi li nga ko doon ñaan ak li la defal lu gën yaakaar naa ku say faar damm di nga tal leneen lu dul ut passeport allahu akbar yàlla karim xakimun alim karimun xannaanun mannaan wa illaa boog ndeysaan mbokk mi ñu ngi góorgóorlu jaamu yàlla fekk sawar la nar a dem ndeysaan xool alkandi jooju lu ko gën a nekk al ndeke moom sawar la nar a dem waaye waa ji ñaan moom da ciy jàmbaare même bu dul sawara àllaaxira balaa dugg àjjana dana sonn lool ndax ay bàkkaaram sunu borom jëlal ko ñaan gi fattalee ko ko ay turu ca turu àllaaxira ya yaakaar naa boo xamoon ni foofa la ko suñu borom def di nga xam ni fi mu la ko defal moo la gën a arrangé li may jeexalee mooy benn waay da yonent bi da koo fekk ci jàkka ji mu toog def nii talal ay loxo di ñaan اللهم إني أسألك يا الله بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد yonent bi ni gis ngeen kii kii ñaan na yàlla ci turam yu màgg yi nga xam ni buy pare yàlla di ko nangu إني أسألك بأنك أنت الله الحنان المنان الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام ينتي على المنكيل منيان ترو يالا ومك ويغا قمني كوكوتي نيان مميلة كوكوتي كنك ويرنك سنني الحي القيوم ñaari baat yi turu yàlla wu màgg yu ñu ngi ci moo tax nit ki bokk na ci li muy ñaan yaa xayu yaa qayuum yaa zal jalaali wal ikram yaa xayu yaa qayuum yaa zal jalaali takraar ko ñaan ci yàlla say aajo amaan na yàlla subhanahu wa taala may la lu gàtt gàtt gàtt gàtt mbokk yi bul fàtte sa mbokkum julit nga ñaanal ko mbokk yi am na ci say wayjur ñoo xamante ni tey ñu ngi ci biir suuf allahu akbar sa maam sa baay sa ku mën a doon kooka tey yóbbuloo ko kado bu gën a rëy ñaanal ko ndax boo ko ñaanal amul loo ko mën a defal mu fekki ko kooka bul ko fàtte mukk say way jur ñoom ñi la nampatal ba nga mel ni nga mel moo xam ñi ngi dund moo xam ñi ngi faatu kooka bu leen fàtte mukk sa mbokkum jurit ak lu leen mbokkale yaag moom fu ngeen mën a xamante même bu dul amalante ngeen njëriñ ñun dañoo jàpp ni faw ñu amalante njëriñ bu ko fàtte de yéen ci yàlla bi nee na soo ñaanalee sa mbokkum jurit mel na malaaka di taxaw su tolloo sa mbagg mi soo ne yàlla na ko yàlla may nangam mu ni waay amiin waay te ba pare yàlla defal la man damay wax ni kon ku bëgg bénéfice da ngay ñaanal sa mbokkum jurit borom xam-xam yi kenn ci ñoom al imam Shafii day wax ni man de am naa soixante dix personnes yoo xam ni saa su may ñaan sama xel ñi ngi ci ñoom damay tuddaale sax seen tur mbokk yow est-ce que am nga jot googu ndax yow am nga ñetti nit ñoo xam yaa ngi leen tudd sax di leen ñaanal suñuy borom yi xam-xam allahu akbar mbokk yi ñaata téere la ñu taalif bàyyil ñu fi xadis yi leer na tafsir bi leer na quran bi leer na aqida bi leer na lépp lu ñu sal sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale ñooñu mbokk yi ndax ameel nañ leen njukkal lu raw di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala ñaanal yàlla taxal leen ndax ñoom ay keno lañ ci sunna ñooñu bu ñu daanoo rek ñeeg bi daanu suñu kaw la jëm fas suñuy bopp ñu ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala waaye nag soo noppee te loolu lépp nag nga ñaanal sa bopp yow it nag ndax it nag am nga aajo aajo yee nga ñaan ko yàlla yàlla day xakimun alim karimun xannaanun mannaan ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla yenkee walaat nu roofataal suñu xol ngëm-ngëm ci li nga xamante ni mooy ñaan waaye yàlla na yàlla dimbale ñu ci guddi yi barkeel yi lépp lu ñu ci ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul nu ko lépp luy njariñ ak fu mu mën a bàyyi ko yàlla na borom bi subhanahu wa taala bi jël ñu ko xëccal ñu ko andil nu ko waaye luy lor ak safaan ak musiba lu yóbbu suñu ngor mbaa mu yóbbu suñu diine mbaa mu yóbbu suñu kóolute ba dootuñ wóor ci yàlla na yàlla sànnil na ko ci àll ba ñu mucc yàlla na yàlla musul ci li yonente daan muslu ñu deegu ñaaw mbokk yi bokk na ci ñaani sunna nit ki di muslu yàlla ci deegu ñaaw nit ki di muslu ci yàlla ci feebar yi nga xam day xaw yi sutura feebar boo xam doo mën a dem woon ak doo mën a tuur ndox feebar boo xam allahu akbar mbokk yi da nga am feebar yoo xam wallaay day xaw yi sutura mbokk yi yàlla na yàlla musal na ci loolu yàlla na yàlla saxal na ci njub saxal na ci ngëm ak liimaan ba seconde bi mujj ci suñu dund ñu faatuwaale ko tabbi aljanna wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain